نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين برم الله دين جاء taala te julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noo ngi siyaare di ñaanal si ñëpp am tawfiix barke xadim rasul ñoo ngi del si ci seen xasida ful ul borom Tuuba mu ngay seedeloo mboolem lu yàlla bind ci kaw suuf na ngeen seede ni man jaamu yàlla laa boo xam ni yàlla rek laay jublu woon yéefar yi gannaaw yaa jumlatal xalqi ashadu li yawman waaye boo jëlee ko foofu ñu dem yaa jumlatal xalqi ashadu li yawman يا جملة الخلق أسأله لي يوما فيه يا أصحدوا لي يوما فيه يغوص المجرمين اللوما يا جملة الخلق yéen mboolem lu yàlla bind mu nekk ci kaw suuf. da ngeen ma seere bis dëgg tey man xaadimu rasul. luy mujrimoon yi dugg génn naa ci taban lu ma dugg mujrimoon yi génn nañ ca loola. bi an yakaari bi abdullah هدم عبده ابن عبد الله ربتكو بن يدارني عبد الله خدم عبدي ابن عبد الله ngeen seere ni àdduna ak alaaxira foo fi mën a nekk jaamu yàlla lay doon doon jaamu yàlla waaye may doon jawri ne su daal isaatu sàndam abdullah wa muslima wa muslima wa muslima li kulli muslimin sopp naa bu wa muslima waaye képp ku julit bu jigéen jàppal man sa soppe naa mu xel kulli muslimin waaye képp koo xam ne ab yéefar nga muslima moo xam bu la xam bu la la gannaaw lii ma wax nag wax ahmadu moo bind te mooy man may borom julli ci kii nga xam ni faral gaa nga xam dañ maa bañ ala nabi mustafa wali wa sabri wa oh. ala nabi mustafa وآله وصحبه وسلم على النبي يالنا نك تي يونت بي المصطفى كاي كنو تانكا محمد موتو محمد رسول الله وآله ak ay ñoñam wasaabi ak sahabaam wal ummati ñay borom jëf yi ñu sant ya

man maa wax man xaar dafa danaa dindi. buntu wax buntu wax naa waxan asala dindi na rabbi sama borom du na borom lor yi. ci barke bi yonent bi xam kafahum ca la ma fekk rek turam borom noon yi. حلو وهيم الحمد لله wóolu naa wóolu nan ni naka man xaadim rasul yàlla rek laa fi nekkal ma def xaritam ma def soppeem ya rasul alayhi salaatu wasalaam na ngeen xam ni man lu ma taxawal kenn mënu ko dindi su may borom bañ min kulli man bi ko ci lépp loo xam ne nag ko fi yéefari saata bi borom gawe nañ ko. wala akulu sami tasasuri. insa. insa man jaa wala akulu. du ma nekk mukk man xaadim rasulillah. min sami tasasuri. di sàkku ndimbal te keneen ku dul sama borom. insa man jaa yàlla mooy buur bi nga xam ne ko am lu ko neex mu ne te lu ko neexul duutu ne. bakk naa seetlu sa borom gi. moom rek lay xool jëm ci moom du ma xool feneen. mooy ki nga xam ne nekk la sama jëm gi moo dem yiw yi. ومن قرني لخيار الدين فأنا ربك بكنا سلوك سامبرم تبارك وتعالى التجي ما يغيرو إليه جمتمو من نكتب الكوخم يالا نكال نما التجي التجي بولم لما يأكارو انتبا بالخوري كأيو يخوض ما أريد من المنا من الخلق yàlla teral na ma ci barke yonent bi yàqootu ma uri rabban sama borom yàqootu ma man la ma maa uri lépp lu ma bëgg ci mboolem xeeti xéewal yoo xam ne jaam yàlla yi ma gërëm sama jëmm ji sant naa sama borom tabaraka wa taala wala asal askuru du ngeen gis ci man leneen lu la sant wa bi lisaani sama na mi man xaatim al Mustafa wa qawli askuru ak sama xol bi ñu andi ko sant saxando wala asal askuru wa bi lisaani xaati askuru sakkat ko sant naa ko wala asal askuru te duma dañ mukk di ko sant di ko sant ci sama nambeñ di ko sant ci sama xol sama lambe ak sama sama sa am ko tuddu dana ko jaamu ci biire islam la koy jaamu ma kennal ko mom borom tabaraka taala mom mi nga xamni joxe ak mucc ay yalla sédé len ma li nga xamal ne sama waxi démb sama waxi tey jën lay doon. yaa man jëndi aalamiina jabbaar. bis bi yàlla dajale mbooleem jaam yi nii laa fay waxee. yow ma jëndi aalamiina jabbaar. wal tashhadu seede leen ma. mbooleem lu wax. يوم تجمع العالمين جمعها بسبي يلا بدل بولم بني في الله ربي دما لن يلا سما بروم سائر سائر وباطل اكبات حيث اكون فو من نك بمناياتنا يلا دوت نخير مي سما كاو الله ربي سائر وباطل حيث اكون بمناياتنا yàlla mooy sama borom man xaaral ma safa mooy sama borom ci saayir mooy sama borom ci baatin fu ma mën a nekk rek ci xéwal sama borom bi laay doxee maa ngi rawat ci yonent bi mooy sama wasila yàlla yàlla doon xéwal ci moom xéwal ku gën a kawe ga ak ay ñooñam أدعي صحابة سيالا مينما لو خمني بيك ناكي بولي من بما يسرني وسهلي خادمي لما ينصب بروبك يالله يخلق بيك ناكي يالله يخلق بيك bi jaay xaadim rasul alayhi salaatu wa salaam barke borom Tuubaa nasrun min allaahi wa fatun xaribun wa basirul muminina borom nasrullahi diine jaa